mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci message bu am solo bi nga xamante ni Serigne Saliou Thioune di doom ci Cheikh Béthio Thioune te jamono ji mu nekk njiital Cantakun yi yëkkati na ko jëmale ko ci taalibe yi nga xamante ni bàyyi woon nañ ko fi toppi soxna Aida Diallo te ñu rek daal di ñëwaat eh, jébbalu si moom lu toll ci ti fan la Serigne Saliou Thioune daal di dajale ab mbooloo boo xamante ni bëri bëriwaay bi foo ko takk weesu na ko ca buntu kër Serigne Saliou Mbacké ga jàkkaarloog jumaay Tuuba dajaloo boobee nag la ko waraloon Serigne Serigne Cheikh Saliou Mbacke di taw ci Serigne ko ki nga xamante ni moo di Serigne Saliou Thioune mu di ay camion suuf yoo xamante ni jóge woon na ci njaareem ñu daal di koy déposé woon rek foofee ca buntu kër Serigne Saliou Mbacke yooyee jàllu suuf nag bëriwaay gi foo ko takkoon weesu na ko ba tax nag Serigne Cheikh Saliou Mbacke di xalif Serigne Saliou daal di woo Serigne Saliou Thioune daal ko koy jox liggéey boobee ngir ñu tas jàllu suuf ya dugal ko ca biir kër ga ci ak Pastef ak takku gu mat ci la taalibey Serigne Saliou Thioune yooyu daal di jël suuf si nga xamante ni defoon nañ ko ca buntu kër Serigne Saliou Mbacke googe daal di koy tas dugal ko ca biir kër ga ci lu toll ci ñeenti fan lile nag di firndeel ak pastef gu mat sëkk goo xamante ni dongay Serigne Saliou Thioune yi waneeti nañ ko ginnaaw nag liggéey bi bi mu demee ba jeex ci la Serigne Saliou Thioune daal di jël parole sant bu baax ki nga xamante ni moo di Serigne Cheikh Saliou Mbacke mi ko wóolu ba jël liggéey bu toll nii daal ko koy jox waaye tamit nag profité waale na ci occasion bi yi daal di santat talibe yi nga xamante ni jëloon nañ yeneen yoon maanaam toppoon nañ ki nga xamante ni moo di soxna Aida Diallo ginnaaw bi nga xamante ni baayam Cheikh Béthio Thioune génn na àdduna te ñooñee sax daal di mujjeewaat rek ñibbisiwaat leneen li nga xamante ni Serigne Saliou Thioune xam na ne ko nee na talibe yi doon nelaw yeewu nañ ba tax nag ñu daal di xàmmee lu baax ak lu bon loolee waral nag ñu daal di ñëw rek topp ko beneen révélation boo xamante ni xam na ko nee na baayam ba di topp ndigal nee na loolee la ko Serigne Saliou Mbacke rek daal di santoon moom Cheikh Béthio Thioune jëfe ndigal bàyyi tere jërë ngeen jëf la ñuy yam ak yéen